ci sa mariage parce que il faut ñu ñëwaat ci à saison ans vous étiez jeune naka nga naka nga mun a nekkee saison ans dugg ci mariage. xam nga dama am ay kilifa ñu décider bëgg peut-être 16 ans. Euh, euh, te avant xamu sa jëkkër. Euh, si xamante nañ ay ñaari weer waaw bi ñu waree. bi ma waree euh, euh, mariage ak moom xam jot nañ xamante. Mhm. jot nañ nekk euh, bi ñu war ñu xam ni ma xam ne kii mooy nekk sama borom kër après ñu may ma ko. d'accord alors ci passage boobu. parce que ñoo doon demandoo ñoo doon demandoo école Blaise Diagne. Mhm. Mhm. ngeen di jàngandoo. ci passage boobu dañ ci wax benn passage bu metti boo xamante ne dafa émouvoir adduna bi yëpp. muy nga ëmb war a accoucher c'était dans des conditions très difficiles moment bi quand vous regardez dans le rétroviseur lan ngay lan ngay wax. sant yàlla sant yàlla carrément parce que loo xamante ne dal na ma euh, ba tey ma xëy di ko nettali sant yàlla suñu borom sant bu baax euh, Adja parce que c'était pas évident xale nga jaar ci yu métti yëpp ba tey jii nga nekk bii jour bisu bi nga doon ba Adja tey invité la plateau nga def ngay def yeneen plateau ak yeneen ak yeneen ba ñuy xool bisu bi di jàpp ni que sax kii am na benn tuuti jàmbaar wala tuuti référence bu ñuy gis ci moom ça m'a vraiment forgé. d'accord mais benn moment vous devez être très très traumatisé par incident par expérience yooyu yëpp ñëw dal ci yow parce que vous étiez très jeune ba pare nga nekk jigéen aussi. traumatisme yooyu dafa dem ba dafa nekk ci man. jusqu'à présent waaw dafa noonu euh, euh, dafa bokk ci man dafa bokk ci man ba dem ba faaleetuma ko dara daf may dal ma jàll ci leneen. mu mel ni tàmm nga métit léegi dama tàmm métit ni ñu ko mënee wax ci mu gàtt. te jour bi may gën a maquillage jour bi may gën a rafet toog di wax. Mhm. jour boobu laay ëpp métit déranger ma je vis avec yàlla suñu borom la lu mu namm ci jaamam boo ko àttanul du la ko teg dañuy sant suñu borom parce que <laughs> yàlla suñu boroom dafa nekk nit koo xamante ne euh, maanaam <laughs> nit dafa nekk nit dafa nekk euh, euh, koo xamante ne nit jaamam la gën a fonk. Mhm. wala xadd karam naa bani aadama la yàlla suñu borom wax donc euh, lépp lu ma mënti sàkk nit moomu ci gënal I love myself. absolument. ngay gëm sa bopp. Uh-huh. di redressé wu tout le temps euh, di nangoo daanu ba ñu xam ne daanu nga nga jugaat. alors en 2010 parce que maa koy